tey ñu fas yéene ñëw ànd ak yéen suñu fukkeelu dars ak ñett waaye bu ñu fiy mujj borom téere bi mu ngi doon jàngal ah, lu jëm ci wàllu njàpp nit ki ban jamono la ko war a def ak kan moo ko war a def ak lan moo war a tax mu def ko leer lañu lool ci dars bi ñu génn kon suñu dars tey tak li ñu bëgg a jàngal mooy naka lañuy ñuy jàpp naka la ñuy tiimee lan moo ciy farataak lan moo ciy sunnaak lan moo ciy ngëneel ak Ah, lan mooy yàq tiim ba mu jeex mooy fi muy waxee ne faraidu tayammumi ba bunt ba jeex mu ne wax wa faraidu tayammumi mu ne farataay tiim mu ne bi ci njëkk an niyatu mooy yéene comme ni nga xamee ci mboolem jaamu yàlla yi ndax jàngale yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba waxoon ne innamal amalu bi yi mbir mu nekk dafay aju ci yéene kon farata bi njëkk ci tiim mu an niyatu mooy yéene waaye naka noonu mu ne wa saidu taahiri ak pàkk bu làpp pàkk bi ngay ti tiimee mu nekk lu laab loolu mi ci farata yi la bokkoo comme li nga xamee ne ci jàpp ndox mu làpp lañ soxla woon waaye naka noonu mu ne wa masxul wajihi masaa xar kanam ci faratay tiim la bokk masaa xar kanam ci tiim faratay tiim la bokk waaye naka noonu mu ne wa masxul yadayni masaa ñaari loxo ilal kooxay ni ba ci tikku jara yi loolu ci faratay la bokk ba fi ñuy takk montor wala lam nga masa loxo ba foofu tey ci ci ci faratay tiim la bokkoo kon wuute na fa ak farata bu doon fa ah, njàpp kon bu doon jàpp la foofu sunna lay doon waaye bu dee ci tiim foofu farata lay doon waaye naka noonu tamit wa darbatul ardil ula ak dóor bi ngay njëkk a dóor ci suuf dóor boobu farata lay doon waaye naka noonu tamit wal fawru gaaw nga tiim li ngay tiim jóge fa loolu farata la waaye naka noonu tamit wa duxulu waxti balaa ngaa tiim waxtu wa jot loolu tamit nee na ci faratay la bokk waaye naka noonu tamit tisaalu bi salaat yi maanaam tiim gi dafay taqaloog julli gi tiim gi dafay taqaloog julli gi maanaam tiim munta tiim toog di xaar waxtu wa jot da ngay tiim rek a kabaar julli waaye bul tiim di xaar wala dara benn espace dox seen diggante tiim gi julli gi déeréet kon taqale ko julli gi daal nee na ci farata yi la bokk waaye naka noonu mu ne ah tu suuf soos mu wax la ne moo mën a tiim moom la la bëgg a leeral mooy ban façon ak ban moo ko man mu ne wa saa yi du pàkk huwa moom at bu mooy suuf wa tuubi ak suufu ndoomaandoom mooy suuf yi nga xam ne moo mën a tiim moom la lay wax noonu waaye naka noonu wal xajaru ak doj muy xeer waaye xeer bépp xeer boo xam ne man manu doomu aadama dugg ci mën naa tiim xeer boo xam ne daal naka yàlla bindoon mu mel ko dara changé wu ci xeer yooyu mu mën a tiim moo xam xeeru ah, xeeru dënn la wala xeeru kaliyeer la yi ñuy mel nga xam ne doomu aadama amu ci benn man-man xeer yooyu la ñuy tiimee waaye naka noonu tiim wasal ji ak neez comme dëkk yi nga xam ne dafay sedd ba nees bi di wàcc ñoon nees booba nee na dana mën a tiim waaye naka noonu wal xad xaadu ak ban bu tooy maanaam buy lumb bu xam dafa tooy daal ba nga xam ne daanaka ndox mi moom ndox mi daal dañuy jaayante doole boobaa nee na tamit mën naa tiim mu ne waaye wa nax wi zalika ak yu mel nii ma la wax nii nee na yi ak yii ma la wax yu mel nii nee na mën naa tiim yoo xam ne daal sifa bi nga xam ne moo la ko yàlla bindee changé wut boobaa nee na yu mel nii day mën a tiim waaye nag ba tey pare na ci loolu mi ngi lay jàngal yi nga xam ne mënta tiim kon nit ki tamit nekkoon na lu mu gis ak da cee war a tiim moo tax mu daan wala yajuuzu du dagan moom tiim a bi gis siñ ci laso laso bi nga xam ne dañ koy laso miir almatbuux ba bi ñu togg bi nga xam ne defar nañ boor koo lasoo miir boobu nee na mënta tiim waaye naka noonu wal xasiiri ak basan amaane basan bi nga lal poussière bi ñëw xëpp ci ay suuf ba xaw a karet ñoo da xaaral ma tiim ci loolu mënta tiim waaye naka noonu wal xasa bi naka noonu tamit ah, bant bant bi nga xam ne tegu na tamit moo xam garab gu mag la gu daanu poussière ba lam cay sànni noonu tax nga ne xaaral ma tiim ci suuf sii boobaa loolu tamit mënut a tiim waaye naka noonu wal xasiisi ak lu mel ni ñax ñax tamit mënut a siim waaye boo bëggee tiim daal mën ngaa buddi ñax ga fa ñax ga saxoon suuf sax nga tiim ci waaye jëmmi ñax moom mënut a tiim waaye naka noonu wa naxwihi ak yu mel ni yi ma wax benn mënu ci tiim mu ne wa ruqisa yombaleef na lil maridi ñeel ki feebar may nañ ko ngànt fii xaa'itil xajari ci làkkab doj maanaam miir boo xam ne miiru doj la waaye naka noonu wa tuubi ak kiyam ndóomaandóom may nañ ko mu tiim ci kañ leen ko may nag moom mi feebar mu mën a tiim ci ay miir boo xam ne miiru doj la gi ni mel mu ne illam yajid munaawilan xayruhu bu amut keneen koo xam ne fa mu nekk mën na ko fa andil lu mën a tiimee boobaa bu dee miir bi daal miir bi man manu doomu aadama ciment dugg ci wala ay lasoog yi ni mel waaye jëmmi miir la comme mu nekk miir ban comme ni ñu ko daan gisee ci dëkk Saalum ya mu nekk miir ban nga xam ne dara ciment amu ci mi suuf la noonu la bu tooyal ñëw kii ko boobaa yu mel noonu dana mën a tiim waaye bu ñu dugg xasee dugal lu mel ne ay ciment yooyu nag wala lasoog yi ni mel boobaa nag dootut mën a tiim kon ñu bokk ci bàyyi xel bu baax kon loolu mooy yi nga xam ne mënta tiim pare na ci loolu mi ngi bëgg a jàngal sunnay tiim mu ne wa sunnanuhu mu ne tajdiidu saidi mooy nga beesal pàkk bi li lee ni ñeel ñaari loxo yi maanaam boo ñëwee bul ñëw rek tiim dem boo ñëwee suuf sa nga nar a tiimee na nga jël sa ñaari loxo nga faxas ko fàkk ko ba mu set nga door a tiim waaye nag nga defee ko ñaari loxo tamit nee loolu nga ko war a defee loolu mooy sunna bi waaye bul ñëw rek faxasee ko sa tànk na di ngay tiim waaye boo ñëwee sa ñaari loxo yi ngay def ci suuf fàkk ko ba mu set nga door a tiim kon nga def loolu sunna la waaye nag noonu wa masu ma ak nga masaali nekk ci diggante tikku jarab bi ba ci conc yi ah lool tamit ci sunna tiim la bokk kon nga dégg ne ba tey tamit wuti nag jàpp bu doon jàpp loolu mooy farata waaye tey ci tiim loolu mooy sunna waaye naka noonu wa tartibuhu a nga toftale ko comme ni ñu ko war a defee lool tamit ci sunna yi la bokk naka noonu pare na ci lool mi ngi ñëw ak ñun ci ngëneel yi mu ne wa fadaa iluhu ngëneeli tiim bi ci njëkk mooy at tasmiyatu wax bismillah ci ngëneel la bokk comme ni ko yent yàlla Muhammad waxee woon sallallahu alayhi ne lépp lu mbir di def te mu amal la solo te commencé woo ko ci bismillahi rahmaani rahim ne na mbir moom dafay ñàkk barke wala mbir ma dafay njàdd njàdde mooy xar moo xam ne amut genn amaana xar genn nga bëriwul solo waaye bu ko ñàkkee mu feeñ ci moom kon mi ngi noonu kon neen lépp lu waay di def am mbir mu amal solo na nga commencé ci bismillahi rahmaani rahim kon bismillahi rahmaani ci ngëneel tiim la bokk waaye ne ko noonu wa taqdimul yumna ak nga jiital cëri ndeyjoor yi xalal yusra ci càmmooñ yi looy def nga njëkk a def cëri ndeyjoor yi ak cëri càmmooñ yi comme ni nga xamee ci mboolem ah, mbir ah, islaam yi nga xam ne lu muy def ki la ciy jiital waaye naka noonu wa taqdimu zahiri ziraa yi ak nga jiital bitti xasabu yi booy masa nga jiital bitti xasab yi ci bitti nga jiital fa alal baatini ci biir gi maanaam bitti gi ngay njëkk a masa door a masa ah, biir gi waaye naka na wa muqaddimihi ak nga jiital la ñu war a jiital alal mu axirihi teg ci la war a yéexee nga defee ko noonu tamit ci ngëneel la bokk kon kon pare la ci lool mu ngi bëgg a ñëw ak yow ci li nga xam ne mooy yàq tiim comme ni nga xamee li njàq njàpp amoon na moo tax mu ne wa nawaaqiduhu yi yàq tiim mu ne kaliwu dooyu comme yi yàq njàpp mu ne yàq tiim ak yi yàq njàpp daanaka benn la bëriwul lu ci changé mu ne waaye nag borom xam-xam yi dañ ciy dolli a wujudul maa yi xabla an salla ki nga xam ne dafa tiimat ba pare dem ba war a kabaar julli ñu ne ko ndox am na fekk ndox manqué yoon boobaa tiim nga yàqu na kon daal boobu rek mooy bi ciy yokk mooy wujudul maa yi qabla an salla nga tiim ba pare avant ngay julli ndox am boobaa tiim nga moom day daal di yàqu kon waaye lu dul loolu ñoom ñaar ñoo bokk leen yàq moo ne wa nawaaqiduhu yi yàq tiim kal wudu yi comme yi yàq njàpp mu ne wala tusalla defut julli kenn du julli faridataani ñaari farata comme tisbaar ak tàkkusaan ne kenn du ko julli bi tayammumin waaxid ci benn tiim benn tiim nee na mënu cee julli ñaari julli farata comme timis ak gee wala tisbaar ak takkusaan mu ne waman tayammama képp ku tiim li faridatin ngir julli farata dangaa tiim ngir julli farata mu ne jaaza lahu an nawaafilu baadaha na dagan na nag ginnaaw boo paree ci ah, farata gi nga teg ci ay naafila dagan na nga teg ci ay naafila ginnaaw boo ci paree waaye nekk noonu wa masul mushaf dagan na tamit nga laal kaamil ginnaaw boo tiimee ba julli ba pare waaye naka noonu tamit wa tawaafu dagan na tamit nga teg ci wër kaaba gi ginnaaw boo jullee ba pare waaye naka noonu wa tilaawatu dagan na nga jàng alquran nag boo jullee ba pare waaye kañ la ciy dagan nag nee na inna waa boo ko ci yéene nag boo dee fekk nga yéene ko ci mu ne inna waa day fekk nga yéene ko ci waaye tamit nag watti sa wat tasalat mu jokkoo bi salaat ci si ak julli gi maanaam fi nga koy bàyyee fi ngay pare julli ak fi nga koy defee dañuy jokkaloo ne boroom xam-xam nee nan liñ la may ci diir bu gàtt daal mooy lan mooy diggante boo xam ne nit mënu see jàng ayatul kursi ba mu jeex waaye bu dee nit mën na see jàng ayatul kursi ba mu jeex boobaa kii ba dafay yàqoo kon daal na nga fexe mu nekk diggante bu gàtt la daal xam ayatul kursi taxu koo gudd lool ndax nit ki mën na koo jàng bu passé minute du ci teg lu bari kon na nga fexe diggante bi daal bu mu passé nit ku ci mën a jàng ayatul kursi ba mu jeex waaye nag noonu tamit nee na walam yaxrujul waxtu tey fekk tamit waxtu woo génnut kon balaa nga cee mën a teg yi daal nee na day fekk nga yéene ko ci waaye day fekk tamit waxtu wa du génn kon mi ngi noonu kon ñu bokk ci bàyyi xel bu baax mu ne wajaasa dagan na bi mu tayammumin ci tiim an naafilatu naafila kullu ma dikra illa al farida nee na dagan na nit ki bu tiimee ngir naafila dafa tiim rek ngir julli naafila nee na lépp luñ tudd nag mën na ko cee teg ginnaaw gi ba des julli farata ndax farata moo ëpp doole moo ëpp doole naafila kon naafila moom attanut farata waaye farata mooy attan naafila moo tax nit ki bu tiimee ngir naafila bu julli farata jotee day dem tiimi jiwaat ndax boobaa a ah, naafila attanut farata mi ngi noonu pare na ci loolu mu ne waman salla képp koo xam ne julli nga ali aïcha ak gaye da nga kaa julli ci lan mu ne bi taya mu ci tiim xaama na nga jug gaaw li shafaa ngir ngir safa ginne ki bu tiimee ngir julli en gaye su paree bu dee bëgg na cee teg en safaak weetar na gaaw ngir teg ci safaak weetar baax daxaa ginnaaw ga min xayl taxiirin ci lu dul yéexee na ko def te bu ko yéexee nee naa la léegi nag yéexee gi mooy lan diggante bi nit man cee jàng ayatul kursi yi ba mu jeex waaye bu ci nit mënee jàng rek boo paree dangay ngay tiimaat ngir def safaagu witar bi waaye bu dee daal yàggut boobaa tiim nga dana attan safaagu wiitar bi kon pare na ci lool mu ne waman tayammama képp ku tiim ma min janaabatin ci janaaba fala budda munta ñàkk min niyatiha ci yéene ko munta ñàkk boobaa yéene gi nga xam ne ki am janaa janaaba amaana amagul ndox te waxtu wa ma nga nar a jàll ba islaam ne ko mën ngaa tiim julli boobaa yéene jóoj mooy ëpp doole yéene ji nga xam ne moom ah dafa kii wax di tiim waaye bii dafay yéene waale yéene ah sàkkoo julli waaye ndax am am tiim moom mun mënuta yëkkati am toj waaye booba daal day yéene sàkkoo daganal julli il faut mu dugal ci yéene jooj ngir mu mën a julleeg moom kon mu ngi noonu daal loolu mooy tiim xam naa lenn ci ay leeral rek mooy yenn ci ay soxna des fois bu ñu nekkee ci seen i xew-xew gi ni mel amaana ñi nga diw seen kanam yi julli jot ñoom ni ne dañuy toog fañ toog tiim ngir lan bañ maquillage ba yàqu ku tiim ku def lool boobaa sa tiim googu baaxut ndax tiim boo xam ne ci commencement darse ba li koy waral mooy ñàkk ndox ak ñàkk koo mën a jëfandikoo mooy nga jëfandikoo ko mu jural la feebar wala nga jur jëfandikoo ko mu jural la bu ñàkk wér comme lu ne ay taabak yu waaye daal maquillage bi nga maquillage dong dong dong dong wër ta tax nga ne du ma tiim boo ko defee tamit boo jullee sa julli ga baaxut ndax yow amagoo ngantal ah, ngantal jàpp bay dellu ci tiim te tiim nag ah moo tax mbokk ma ba mu ko laajee sëñ Fall na ko tiim ak jàpp bu ci gën sëñ ba ñaari gaay la ñu sëñ bi ko xakim la bi mu ñëwee dañ la ñaar yi nga taxaw mu ne waaw mu jox kenn ki 10 000 ne ko téel waa ji téye mu jox kenn ki teg ko ci diggante tànk yi ne ko tiimal mu tiim ko mën a dem leen ku dem ak li mu yore ka ka jàppoon 10 000 moom ba mu demee am na 10 000 waaye ka tiimoon ba mu tiim ba mu demee dafa bàyyi 10 bi kon sëñ bi ne ko kon jàpp gën fuuf kon tiim li tax muy dagan day fekk ndox mi da nga kaa mënta jëfandikoo wala nga ñàkk ndox ak yi ni mel mooy tax islam may la nga tiim waaye bul toog nii ba mu neex na xaaral ma tiim loolu boobaa islam ko may kon xam naa kon ñi ngi ñëw taxaw foofu di wax ne lépp lu ci leer yàlla lépp lu ci dëng ñun ñi di wax ak yéen la ginnaaw loolu ñi ngi jërëm Oustaz Saïd mi nga xam ne moo nekk ak ñun ci caméra bi waaye nekk noonu di jaajëfal mboole mbokk yi nga xam ne ñi ngi topp ci site bi di jaajëfal ñëpp kon mi ngi ne haza wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin